mbir bi ni rek la démé Ali sama gorol Ali Babou la tudd Mauritanie la jogi ñëw Sénégal eh, di fi liggéey à joalf bon yor fa dibiteri yi nek sama goro dek dañ sama grand sœur Adama fay bon ci bir lolu samedi dafa demoon Dakar am ben soxla bu mu fa doon dox and ak ben jarbatam bu ñu wax bobay légui bu ñu démé Dakar bay ñibisi eh, en cours de route ñu jël ben 7 place ñu ngi doon déglu émission bi ki lamb ji quoi nga xam naa ci RFM gars yi di ko rapporté bon ci biir lamb ji noonu gaay yi bi ñuy avant grand combat bi biñ koy biñ koy biñ koy sëgg biñ koy démarré bobu ñom ñu ngi tolok euh, diggante croisement Cambérène ki kii croisement Malicouna Malicouna Bambara ak euh, croisement Saly quoi légui foofu la ñuy commencé combat bi mu ne ah combat bi da guddee na 9h la commencé jarba bi na waaw commencé na 9h mais xamna bala 10h ñu yeggee Joal moom dafa faraloon Bombardier léegi nag ci biir combat bi bi ñuy rapporté ñu naan Eumeu seen dóor na ko Bombardier dóor na ko Eumeu Sène dóor na ko ah Eumeu Sène daan na Bombardier Eumeu Sène daan na Bombardier mu daal di yuuxu ne daan na ko jarbaat bi ko waa daan na ko mu ne ko daan na ko tëdd ci kawam loolu moom mooy li nga xamante ne fa la ko yàlla suñu borom jëlee léegi nag bi mu daanoo noonu gars yi sept place bi ñëpp inquiété waa paa bi li muy def nii waa tons bi lii la ñu dugg ak moom wax chauffeur sept place bi léegi mun nga yóbbu euh, clients yi garage quoi mais garaawul kii moom il faut ñu la ma moom hôpital mais xam naa ne boobu wàcc na liggéey mais nanguwuñ ko am na ñaari jabar benn jabar bi mu ngi fële am Mauritanie bon euh, sama sœur bi mooy ñaareel bi moo nekk fii Sénégal quoi Joal léegi am na ak moom ay ñeenti doom quoi waaw ay góor wax dëgg yàlla waaw mais nag ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax lépp lépp ci ci ci ci ci sant yàlla la rek waaw yàlla moom waxoon ne nii lay demee nii la koy jëlee ala awlikaal waaw Joal Joal non Joal incha allah léegi jël nañ ko jël moom moom lañ jël si nii nii yàlla def na ba yëpp yombalal nañu di gërëm bu baax a baax ñi ci jàpp waaye médecin yi ñu fi fekk ñoom jox dëkk Joal parce que dafa bëggoon dafa bëggoon sport suñu ASC bi Fassanta Joal moom amul lu mu fa deful amul lu mu defalul foofu koñ ba ba fi mu placé fi mu nekk place boobu sax daje nañu kaa essai boobu ñoom ñu ne dañ koy génne eh, ndax moom dafa ko mënul dëkk ci quartier ba pare di faral benn ASC te ñoom dañ ko lée woon foofu ndax affaire nawetaan affaire demee noonu mu aussi bëggoon royal nekk supporter Real mook doom yi boo leen fekkee sax dañuy toog sax mën naa ko i Barça nii ñu ñu supporter Barça moom mu supporter Real bon ñuy wax ci affaire yooyu xam nga mook doom yi mais papa bu ñu jàppee tey war na am ay juróom fukki at lu teg quoi naqar bi nag ñu ngi koy bokkalu ak waa Sénégal yëpp ak waa askol ak lu làmb di wax Bombardier jéene amoon nga fi supporter boo xam ne yàlla jël na ko wàññi na ko mais nag dañuy sant yàlla parce que diggante Mbour ak Joal la lépp benn la waaw xiiroo jaru fi ŋaayoo jaru fi far la rek waaw farlu quoi yàlla da ko ñëw mu bëgg esport amul lu mu ko jaralul amul lu mu ko jaralul